maa ngi gën a doy waar jamono bii ñuy waxee ak yéen euh, selon nos information yi nga xam ne ñu ngi koy am jamono bii euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci banlieue bi muy euh, manifestant yi jamono bii ñi ngi prendre direction jëm foofa la nga xam ne moom mooy centre ville centre ville nag moom moo ma sa nekk seen. objectif ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a def muy résistance bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy woote ku ne xam ne ne aussi centre ville foofa la tribunal de nekk tribunal de nag euh, fa la ñuy euh, déglu Ousmane Sonko euh, par juge d'instruction muy Maham Diallo foofu lañ koy dégloo waaye nag tey ci 11 heures boobu ba léegi jotaatuguñ benn information buy wane que ne audition bi jeex na wala jël nañ benn. dogal kon dañuy jàpp ne ñu ngi ci audition yi boobu ba léegi waaye euh, mi ngi gën a doy waar jamono bi euh, ndax it ñi ngi dégg que ni euh, ñu ngi def ay foule muy manifestant yi ngir jëm foofu la ca centre ville te centre ville nag daanaka buñ fa demee rek mooy xeex bi day daal di jël beneen dimension donc loolu mooy li nga xam ne moom moo fi jot a xew dañu leen di toppal li nga xam ne ba tey mi ngi nekk enjeu jamono bi ci euh, résistance bi nga xam ne moom moo xew ci jour bi tey